mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun mbokki internet yu Tawfekh Production asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi leen di ziar di leen nuyu kenn ku ci nekk ci fa nga nekk euh, selon situation géographique bi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu da leen ak jàmm euh, ñu am mbégte dalaat ak yéen fii teewaat fii ngir ñëw ak yéen ci actualité euh, de la semaine actualité maanaam xew-xew yi gën a fës ci ayu bés bi Euh, mbokki internet yi euh, ñu leen di fàtt rek ne euh, tey jii nga xamante ni moom moo di jamono ji ñu nekk gis ngeen li fi xew di couvre-feu boo xamante ni état d'urgence la ñu décrété assorti donc couvre-feu di des décisions qui émanent de l'autorité principale de l'autorité exécutive du président de la République jël dogal bi ci conseil présidentiel bi nga xam nag def na ko ak yenn ci kuréel gu ci mel ne CNGO e di conseil national de la gestion des épidémies au Sénégal mbokk yi euh, gis ngeen bu baax a baax euh, cette euh, décision di couvre-feu bi nga xam ne mën nañ ko duppee saison 2 mu mel ne indi na coow lu bëri ndax ku nekk gis na ne heure bi ñu ko tënk ak jafe-jafe yi nga xam te am na ci ci wàllum nit ñi ngir mën a dëppoo ak boobu tere man ci sama analyse bu gàtt ca néew mooy couvre-feu amul pertinence il n'y aucune justificative ci couvre-feu bi parce que bu ñu daan wax couvre-feu donte on a vu euh, am na quatre fois ci depuis 60 68 88 ba ci 2020 bi ñu génn bii mooy cinquième fois bi bi 2021 bi ma jàpp ne <clears throat> couvre-feu yi fi ma sa jaar yëpp à part bu 2020 yi président Macky Sall teg bokk euh, yëpp dañu tënkoon ci ay situation politique quand il y avait une crise politique loolu c'était normal que l'autorité étatique Euh, face des mesures yoo xamante ni au moins euh, prennent des mesures yoo xamante au moins day day day day xaw a indi stabilité pour aar askan bi wante feebar bu am amul benn médecin bu xool feebar bi ne feebar bi diw la tudd sant diw di woy maamam fii la nangam sàngame feebar bi kat diw mii bu guddee lii lay def bu bëccëgee waa xanaa kon feebar bi moom bëccëg ci transport en commun yi moom dafa teew maanaam day ab santé xanaa feebar bi moom ci marché yi jay jabay xanaa du fa teew moom boobaa du ndugg ji du dem doxantu ji foofu te dañ doon le virus circule xanaa kon feebar bi moom xanaa feebar bi ci bërëbu liggéeykaay yi du fa nekk kon feebar bi xanaa moom kon guddi lay solu sangu ba set solu yéeram ne coow ci biir kër yi li gën a danger la ñuy def xool leen kër yi kër goo fi dugg guddi gi dañuy tàncaloo nit ñi dañuy tàncaloo te loolu moo gën a danger ma jàpp ne couvre-feu bi situation sanitaire bi mënuñ ko justifier par couvre-feu li ñu mën a def et loolu tout le monde est d'accord avec l'état du Sénégal mooy que les gens respectent les mesures barrières loolu c'est normal même en même en dehors de la pandémie en dehors des des maladies entre autres nit dafa war a sàmmonte ak set ma jàpp ne amul benn benn yoon benn diine boo xam ne ni àndul ci nit di dam làmbook set raxasu bay set di mais Sénégal da ngay gis ku dox ne fuux fànq daje sëñ bi waaw ñi ngi ziar de waaw nangam nuyoo mais amul sens loolu set dañ ko war a làmboo mais nag lu jëm ci wàllum feebar bii ma jàpp ne mesure barrière war nañ ko respecter mais warul mën a tax tamit ñu tënk askan bi guddi couvre-feu bi amul importance moo war a xale yi ngeen gis ñuy taal fu ne di taal fu ne di tàkk ka jëppit xale yi dañuy mer dañu mer ba fépp moo tax ñu génn parce que tëj bi neexu leen tëj bi kenn àndu ci couvre-feu bi daal amul importance amul pertinence nañu nañ ci bañ a sukkandiku day mel ne nag day jox xel li ñu naan France bu ñu sëqatee euh, ñun ñu tissu bu ñu feebaree.